salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen baalu xaq di leen yi ak bàkkaar yi mujj yi yi ñu def yi ñu defagul sax ñu ngi koy ñaan moom mooy jégalaa kon mag ba yàlla ñu ko jégal ci ak mbaaxam tey jilee yemoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin 2020 mu am ndigal loo xamante ne Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kul murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ak a baax mu joxe ndigal nag jaare ko ci nga xamante ne moom mooy Serigne Mamor li nga xamante ne moom mooy njàngum alquran ci mboolem jàkka yi nga xamante ne ñu ngi ci biir Touba waaye ci mboolem taalibe yi nga xamante ne ñu ngi ñu amal ay njàngum alquran moo xamante ne des koy taxawu ngir ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala nawet bu barkeel mu nekk nag ci loo xamante ne ñu ngi ci biir uh, fii di uh, jumaay Touba uh, ñu bokk ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa daaira bii di muxadimatul xidma fekk nañ leen nga xamante ne moom ne ñoom ñooy ñii di rabitatul madarisul quran te ki nga moom Xadi Jaxate jiital ko fii ci diwaan bu Touba ñoom ñëpp ñu ci ànd ak taalibe dugg ci biir jumaa ji ak donga yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Touba ngir fas yéene taxawal njàngum alxuraan mi commencé nañ ko ci suba ngir taxawee lépp loo xamante ne njàngum alxuraan lay doon ci biir jumaa ji Touba biñ ci buntu yi nga xamante ne moom mooy buntu jumaa ji nag nga xamante ne noonu lañ njëkk a seetlu mooy li nga xamante ne joxe nañ mooy ah, ndox moo xamante ne ak eau de javel ak yëpp yu mu laaj ngir ah, li nga xam ne raxasu wala ah, setal ay loxo daal di ñu defal la gel bi nga xamante moom ngay diw ci say loxo doog a dugg nga takk sa masque dugg fi nga xamante ne moom mooy fii di biir jumaay Touba boo leen gisee taxawaay bi tax ci biti tax bañ dindi masque bi waaye ñun suñu masque mi ngi suñu poos ndax dañoo dugg war def waxtu moo tax ñu jël masque bi denc ko waaye lu ci mën a xew ne ngi fi takk nañ ay masque ngir dugg si fi nga xamante ne moom mooy biir jumaa ji ngir taxawee li nga xamante ne moom mooy njàngum alxuraan ne taalibe yi am na ñoo xamante ne ñëw nañ ngir jàng si waaye am na ñoo xamante ne yoo ñëw jàng si waaye ëndaale seen ay addiya lu mel ne ay ñi di togg ay laax di ñenn ñi di indi ay suukar ñenn ba ay kanet sax gis nañ ko fi ñëpp ngir indi ay xéewal ngir berne la ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ahlul quran ñi nekk ci biir jumaa ji di jàng alquran ji ñu euh, terale leen ci loolu berndeel leen ci loolu ndax képp fu waay mën a berndeel ak képp fu ku mën a doon fii ci jumaa ji la gën a jekk waaye tamit rawatina ñooñu alquran ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàng alquran euh, kon ñu dugg ci biir jumaa ci kanam tuuti bis bu màgg bi nga xam ni Cheikh Mouhamadou Mountakha ibn Cheikh Mouhamadou Bachir moo ko diglee muy njàngum alxuraan moom dañ koy yendoo tey jii ci alxames ji di ñaar fukk ci sawaal. at mu ne nag ma ñëw ci saa bu ñëwee bu ñëwee bu at mu ñëwee te sëñ bi di ko deflu rek dinaa man damay bàyyi sax sama jàkka ñëw fii maay imaam waaye damay bàyyi sama jàkka ma ñëw fii teewlu jàng ngir yàlla ndax ginnaaw alxuraan moom moo moo gën a tedd lépp. ah nu di ko jàng ngir yàlla sëñ bi di ko jàngalu ngir yàlla te sëñ bi am tunu ci yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaaram te sëñ Muntaxa yàgg fi te wér te ànd ak nun bis bi moom day bis bu am solo boo xam ne si Muntaxa da ko baaxoo woo woote ngir ay sabab sa wootee alxuraan rek bokk na ci sabab yo mooy nit ñi tuubaat waaye jéggul suñu borom waaye dellu ci moom waaye ñaan ko waaye dana ko woote ngir sabab it jàngoro ji nga xam ne ñëpp a xam ne mbas la ñu ñaan suñu borom musal ci waaye ñaan dana ko wootee ngir ñu jub am nawet muy ñaan suñu borom def ci ay xéewal waaye jàpp nañu woote bi mën naa ba ñett yëpp kon day lu am solo loo xam ne bi jullit yëpp saa bu ko wootee war nañu koo dégg ci bàyyi bu xel saa bu njee alxuraan ñu tuub ngir yàlla waaye dellu suñu borom jéggalu ko waaye ci jiima jaaraat ci yoon wi waaye ñaan ko ci xéewal yi nga xam ne da ko war di ko joxe mu musul ci jàngoro jii nga xam ne moo fi nekk ci kemeen amul lenn la ko mën a jël lu moom ñu ñaan ko suñu borom ko gannaaw waaye ñaan ko nawet bii nga xam ne ci lañ dëgmal suñu borom def ko muy newatu jàmm ak newatu salaam bokk ne ci liñ mën a jàngate daal mooy nit ñi gën a tubaat waaye gën a dellu suñu borom ndax saa saa fu ko wootee rek la muy tekki la mooy wàcce nañ aw yoon na ñëwaat ci yoon wi wala am nañ xewlu yu ñu aajowoo kon ñaar yooyu benn bu ne jar mu woote ko dañuy ñaan nag moom li tax mu woote ko moo ko xam waaye yàlla na ci am lu kawe njortam waaye ñun ñii nga xam it saa bu ko woowee ñun la ciy woo ñun it yàlla nañ xam fu ñuy teg suñu tànk ba mën a teg ci jaamu yàlla maye moo ci ndigal suñu borom bi waaye mën a jëfe ndigal suñu borom bi waaye mën a moo ci tere yi ñu ko gisee ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko Cheikh Mouhamadul Mountakha ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko Cheikh Mouhamadul Mountakha alxalifatul am euh, ci tey jii ñu def ko bésub tuubal suñu borom balontey ak sàkk sarax jàng alquran mbooloo mi macha allahu fii ci Touba tàmbalee nañ ko ci jumaa ji nii ngeen ko gisee ci soo ba léegi mbooloo mi ngi ñëw. biir jumaa ji fees na sàmmonte na ñit ak ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi digle woon muy toogaay yi ñu di ko yaatal te takk ay masque balaa kenn duggit mu jëfandikoo mesures yi set yi muy laal ndox ak laal ci sel yi loolu suñ mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ci àndal ci taxaw bi muy muxaddamatul xidma ñi ngi ciy taxaw bunt bu nekk def nañ fa ay jumtukaay mbooloo mi macha allahu biir jumaa ji fees na gis ngeen yokk yi tamit mi ngi fees ba parisol yi yu ci bari tàmbali nañ ko firi kilifa yi tamit ñëw nañu noonu it lañ ñu waxee ne ci biir dëkk bi ñu ngi ko ci yaatal ci jàkka yi ak jumaa yi waaye ci biir réew mi kër sëñ Tuubaa yi ak daayira yi ba ci bitim réew ba ci suñu mbokki jullit yi sax euh, yëgaloon nañ leen ko sëriñ bi sàkk woon ñu ànd ceeg ñoom euh, ñu bari waxoon nañ ne façon nañ ko yaakaar nañ ne feek ñuy dem buñ sëlmalee tisbaar dinañ gën a am information yi waaye daal li am solo mooy mbooloo mi moom wuyu si nañ ci ni ko sëriñ bi wootee woon eh, am yaakaar bu baax nag sëriñ bi waxoon ne nañ ci jiital fas tolluwaay yi nga xam ne moo nekk ci réew mi suñu borom saafara ko muy mbas mi waaye tamit nawet bi mu ubbi ko ci jàmm tàggale ko ci jàmm teñ muurloo ko teñ ñaanal ko ñaanal kilifay diine yëpp ñaanal jullit yëpp rek ci àddina bi jàmm akuk dal النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات innaka mujibu daawaat allahumma taqabal minna xatma alquran wa tajaawaz anna maa kaana fi tilaawatihi min sawin aw nisyaan aw taxriifin aw taqdiimin aw taaxiirin aw ziyaadatin aw nuqsaan aw taawiilin ala xayri maa anzaltahu aw tajiilin inda tilaawatihi aw kasrin aw seexi lisaan aw wuquufin bi xayri waqf aw idgaamin bi xayri mudgam aw ishaarin bi xayri bayaan faktubhu minna ala tamaami walkamaali walmuhadabi min kulli alxaan warsuqna fadla man qara'ahu muaddiyan xaqahu maa al aadaai walqalbi wallisaan wahab lana bihi alxayra والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الخفلة والكسلان wa aminna min azabi alqabri wa min suali munkarin wa nakir wa min akli diidaan wa bayd wujuhana yowma albaat wa aatiq riqaabana min anniiraan wa yamin kitaabana wa yassir xisaabana wa saqil miisaanana miisaanana bilxasanaat warsuqna wa sabit aqdaamana ala siraat wa askinna wasata aljinaan warsuqna jiwaara sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam wa akrimna bi liqaa'ika yaa dayyaan allahuma jal alquraan alxasima rabiha quluubina wa jalaa axzaanina wa dahaaba xumuumina wa qaa'idina wa saa'ixana ila jannati naciim allahuma ijcalhu aniisana fi lwixsha wa musaaxibana fi lwixda wa musbaaxana fi dulma wa daliilana fi lxayra wa munqidana fi lfitna wa asimna bihi min alzeyqi wal ahwaai wa kaydi alacdaa yaa raxmaanu yaa raxiim allahuma axtim bisaadati ajalana wa xaqiq biziyaadati amalana waqrun bilcaafiyati xuduwana wa asalana wajcal ila raxmatika masirana wa maalana wasbub sijaala afika ala zunubina wa munna aleyna bi sitri uyubina allahuma ijcal taqwaaka saadana wa sixata bika zuxrana wa ictiqaadana wa amin min aljuuci walxawfi bilaadana wa saaira bilaadi almuslimin wa amin min aljuuci walxawfi bilaadana wa saaira bilaadi almuslimin wa amin min aljuuci walxawfi bilaadana wa saaira bilaadi almuslimin yaa rabbal alamin allahuma ballig sawaab maa qara'naahu wa nuura maa talawnaahu li ruuxi sayidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wa salaam wa li arwaahi aabaa'ihi wa ummahaatihi wa aswaajihi wa durriyaatihi wa ashaabihi ridwaanullahi taala alayhim ajmain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 julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant borom Touba di gën a di gën a yeesal sunu taalibe ci moom di ko yeesal di koy di ko seereel ki ko fi nekkal mu Cheikh Ahmadul Muntaqa Cheikh mu Muntaqa ñoo ngi lay nuyu di la li nuyu bokk yu baax yi nga xam ne ñoom nga boole loon ñu seq liggéey bi te ñëw ñëpp kenn ku nekk daf ci la war da ko tàmbalee ci. ñi ma àndal liggéey bu alxuraan ji muy sëñ Basiiru Mbàkke bu Cheikh Ahmadou Fadal ak sañ Basiiru sëñ Abibu ak sëñ Xaadi Jaxate ñi ñu àndal ñëpp ak waa Muqaddamatul Xidma ak mboolem di aji ci jumaa ji mboolem nañ ko daan limee ak sëriñ Amsatu Mbàkke bi nga xam ni moo jiite woon njàngum xasaayit mi moom sëñ Soxay noo ngi nuyu yow sëriñ bu tedd bi di xamal ni na ko digle woon bëggee woon ko ni bu ci suñ kattan ak àggul itam def nañ ci suñ kem kàttan ba jàpp nañ ni la nga nu digaloon def nañ ci luñ man bu dee wàllu alxuraan ji jumaa ji li fi teew bari na lool waaye mboolem jumaa yi ci dëkk bi ak daara yi ñu ci baree baree bari nii dëkk bi bindoo àdduna si bindoo ni moo tax ñu baree bari ña nga fa yem yem seen daara ak seeni jumaa waaye ñu ci baree bari jokkoon nañu jokkoon nañu ñi yor liggéey bi xamul leen ni na ko diglee ñoo ngi koy defee foofu ci biir dëkk bi ak ak biti dëkk bi lépp teewul nag fii li fi war lépp teew na bu dee wàllu xosaayit itam sëriñ xam sa defe na ko na ko diglee woon mboolem kuréel xasaayit yi digal ni leen kenn ku nekk fa nga nekk nga toog fa jàng fa lim yu baree baree bari def def ko ci ndigalul sëriñ bi kon sëriñ bi jàpp nañu def nañ ko ni ngi nu ko digale woon noo ngi ñaan ci barke borom Touba mii ñu nekk fi wetam la la ci taalibe bi yëpp fasal njabootu sëñ Touba bi fasal la ko ci bokk jullit yi fasal la ko ci yal na la ko yàlla defal nu fekkee ñun ñëpp waaye nu nu itam muy bokki taalibe yi muy njabootu Serigne Touba gépp muy bokki jullit yépp la nga nu ci fasal ci sab xol te ñëpp ñu xam ko yàlla na yàlla yàlla yàlla na ko yàlla defal ba ba mu kawee sa njort loolu dong lañ ñëwoon nañ ko ci nañ ko ci mottali di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nga ñàkk ñoo diggal ñu yàgg jëfe seen digal tiir bu yàgg yàgg ci barkeb Serigne Touba. ndoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu saa su ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ agréer